the government of Gambia through the Ministry of Agri on Friday 5th June 2020 received agricultural machineries, equipment and fertilizers from the government of the People's Republic of China on what on what delivery to the family to the farming community. waaw lii Chinese la the People's Republic of China ñoom ñoo euh, donate Gambia bi euh, ay ay machine fertilizers yu ak bagage yu nga xam ne pour farming la daal so uh, minister of agriculture moo nekk Miss Ami Fabure waaw Fabure moom moo ko receive last Friday te mu ne gis nañ ne daal comme lii dina gën a dem si jigéen ñi nga xam ne ñoo dee garden waaw lu am solo la taay moom saa su ne dañ ko dee wax ku wa wax affaire agriculture moom mooy mbay mi si secteur bu mun a ñëw rek dañ ko soxla nañ ko te ren ren moom Gambia surtout nguur gi war nañ cee gën a mun a am taxawaay bo am solo mun a jàppale euh, baykat yi ci ci ci ci li nga xamante ne mooy comme ni ñu ko waxee ci jiw ak everything te foog naa ne lii tamit China bu ñu ko indee euh, ci ja dooleel Gambia ci côté boobu su dee garden la su dee everything foog naa ne euh, war nañ ko mun a rafetlu waaye tamit am yaakaar impact bi dina mm-hmm. dina dina dina yaatu ci ci ñëpp ah parce que loolu tamit loolu la ñoo séntu ren ku ne war ngaa am beneen taxawaay ci mbay parce que lu ñu lu ñoo dund nii kenn xamul fan la ñoo jëm te réew bu nekk war naa seetaat yëf yi nga mun a fexe li ngay dundee nga mun ci at least provide something fekkee sax du enough waaye doo mun a yaakaar lépp ci biti. Mm-hmm. Mm-hmm. lu am solo lu time bi moo jeex rek. waaye foofu suñ bunta la. Ah, bundee bugg di yaatal. Mm-hmm. waaye di wax ne rek ñu ndimbal yi fi nekk di dégg boobaak léegi bii moo ñu si gënal ñu si bu nga xam ne ñëw nekk na bu nga xam ne dem bu am solo la waaw.